gars yi mbégte bi Al Nassr entraîné tey jii fële ca Arabie Saoudi mbégte moomee bëgguma dara raw leen ci ni ma leen ko waxee Sadio Mané ñaancoo international gars yi duñ ko bàyyi benn pokus fu mu dugg ñu daa bari ñu ko gërëm nañ leen santi leen ci xibaar yi nga xam ne yéen a ngi koy xaar jamono jii ngeen def seen i abonnement yow mi nga xam ne yaa koy door a ñëw nga def sab abonnement yow mi ko def ba pare cant ngërëm ñeel na leen gars yi di leen fàttali match bi incha allahu fan si club Aladji Malick TV catalan ya ca match ba dimanche la maanaam ginaaw suba 16h euh, fële ca Thiès di match boo xam ne gaañ yi match bu nar a cuqur mbuuj lay doon match boo xam ne dana tegu ci temps l'homme de match ba nag kii di Malick Sarr sponsor officiel bu laaj Hadj Malick TV teg na ñaari moyen képp ku doon l'homme de match ñaari kii bi ñu dàbbar ñi la ko bu leen ko dara kenn na ñaancoo national geen gis ko noonu ak mbégte mi nga xam ne ay coéquipier maanaam ay àndandoom ci wàllu football ñi nga xam ne ñoom la bokkal terrain bi kontaan nañ moom kontaan ci ñëw gi kontaan ci Cristiano Ronaldo moo tax jàmm ak salaam ak Imour ak Kafagré moom la ñu nekk tey ji ci entraînement bi tey loolu dafa baax ci ab équipe équipe boo xam ne gars yi dañuy nekk foofu di kafakaree ak di dóorante loole day may confiance équipe bi ba équipe bu nu dajal man koo gani def dana am solo bu baax a baax waaye ñancoo international ngeen gis ko noonu daanaka mu yeesal li nga xam ne mooy ak cofeelam ci football ak cofeelam ci yéen ñi nga xam ne yéen a koy bàyyi xel ci final bi nga xam ni dëgmal na ko final boobee du yomb benn yoon final boobee moom ñancoo international dana ca bokk ak kii nga xam ni mooy Cristiano Ronaldo Chris bu lépp dee toll gis ngeen taxawaayam ci entraînement yi car macha allah laf cat lañuy wax ci moom ci taxawaay bi nga xam ne mi ngi koy wéy di am ndax loolee liggéey wóor liggéey la dëkke liggéey boobee mu dëkke tamit yàlla ko ci yàlla defal barke mook ñi mu bokkal équipe boobee ndax premier ndam bu muy indi fii ci Afrique wala foofee lay toog waa Afrique di ci jaaba jonge mu nekk loo xam ne lu njëkk la ci moom gars yi ñu bàyyi leen xel loolu bàyyiloo leen xel information yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam ndax saison bi gars yi ubbiwaat na léegi affaire yi comme mbàccum gerte émission yu yees jàngat yu yees résultat yi lépp dee leen nu may nopp dara du leen rëcc ci yooyee programme cant ak ngërëm ñeel na leen jërë ngeen jëf ci kanam ànd bi am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam